mais euh, ci euh, de presse yi li ngeen wax rek lañ ci mën a wax c'est c'est sa ça fait mal partout dafa mel ni dëkk bi dara dox fi gouvernement amul mais damay euh, teg baaraam rek ci affaire u presse bi ngeen wax euh, mën naa ni presse de de sous la presse réew sous-développé malgré que y a des compétences avérées mm. conditions yi ñu leen di liggéeyloo mënul permettre une presse libre euh, qui fait des enquêtes qui fait des tout euh, ñun gisuñu loolu ñu daal li ñu gis mooy euh, journalistes yi nga xam ni ñoom la ñuy jox liggéey bi soit formé wuñ leen am na ñuy formé soit formé wuñ leen ñoom ñooy def émission yi ñooy bind articles dans les journaux et tout ça on les appelle des stagiaires ou autres soit ils ont été bien formés mais on les met pas dans des conditions matérielles telles que danañ am envie continuer de liggéey bi normalement loolu mooy indi corruption yeeg affaire yi yëpp boo bëggee def point de presse sax da ngay joxe passe et les gens ne viennent pas et cetera lu ne la ñuy gis. Mhm. et c'est pas la faute des journalistes c'est c'est, c'est le système c'est le euh, RTS euh, les autres presses euh, kii euh, gouvernement moo leen di utiliser nu ko neexee donc elle n'est pas libre. d'ailleurs c'est des responsables politiques ñoo fa nekk ñooñu naka la ñuy mën a profiter askan wi yëpp c'est pas possible. Hmm. doo leen ngi jamais ñu dénoncer benn problème. ils ils mettent toujours euh, la pomande sur tout ce que fait l'État te ñun dañu am état boo xam ne dafa ñu tàmm gouverner mais du ñu wax dëkk loolu mooy maalu profond Sénégal. les les les les politiques ne nous disent jamais la vérité sur les boo jëlee courant boo jëlee éducation loo mënti jël nga jël loyer nga jël euh, euh, loo mënti jël secteur bu dugg rek euh, gestion bi ay kàcc rek moo ko la hmm. boo vérifier si tu te documentes tu vois que ay kàcc la ñuy wax à travers les médias nationaux mais à travers vos plateaux aussi quand vous les invitez seuls mais quand vous les invitez en débat avec d'autres acteurs comme nous ou d'autres <laughs> dañuy laaj d'abord ñan ñoo ñëw ci plateau. Ah, ah boo leen invité débat contre contre ah. dañu le ñoom voilà ñoom li leen arrangé mooy nga invité leen ñoom rek ñu ñëw wax lu leen neex joxe ay chiffres wax ay oh là là mais dès qu'il y a invitation débat contradictoire dañuy laajte ñan kan mooy ñëw mm-hmm. am na ñoo xam ne bu ñëwee ils ne viendront jamais. parce que bu ñu li ñuy wax yépp dañ koy dindi un à un. Mm-hmm. te duñ ko mën a weete. moi il y a eu un responsable d'un ministère euh, une fois ci benn rajo mu waatal ma ni augmentation courant amul heureusement moi je suis un avocat man bu may déplacé wu damay déplacé wu ak suma document yépp mm-hmm. li ñu yor ci document kenn xamul lu mu toll parce que bëgguñu wax dara ñu weddi ko ma génneel ko journée tegal ko avec l'interview du du euh, comment dire du directeur, directeur général de la Sénélec et tout mm -hmm. qui qui qui qui donne ses arguments sur l'augmentation dafa ruus après il a dit moom bu ñu koy envoyé ci euh, débat ci journaux yi bu fekkee man maa ñëw euh, bu ñu ko envoyé tellement il avait honte donc il vous dit jamais la vérité quel que soit le secteur que vous prenez Mm-hmm. donc loolu la mën a wax ci revue de presse yi. Mm-hmm. en attendant ñu ñëw dans les secteurs là détaillés yooyu mm-hmm. parce que les problèmes de consommation. Euh, vraiment ce sont les problèmes cruciaux euh, qui fatiguent les Sénégalais.